Ndiane di def cérémonie bu ñuy waxee cérémonie de remise des matériels scolaires maanaam dañuy joxe jumtukaay yi nga xamante ne moom la ndaw yi di soxla pour mën a jàng ci at mu bees bi xam ngeen ne depuis lu toll ci ñaari at kilifay réew mi ñi yore wàllu njàng mi dafa am concept bu ñuy tuddee ubbi tey jàng tey bëgg saa yu école ubbee tey xale yi mën a tàmbalee jàng tey te loolu dafa am ay jumtukaay yoo xamante ne bu matewulee loolu amaana du mën a amee nuñ ko bëggee ñun nag ñun ci commune bi li ñu ci waroon loolu la ñu doon jéem tey jéem a joxe matériel yi tey fii joxe nañu fii matériel yu xaw a am solo boo ko doon lim ci xaalis mu ngi toll ci douze million li ci ëpp nekk ay kaye ay bic ay crayon ay craie ay règle lépp loo xamante ne daal daan ko soxla pour mën a jàng normalement loolu lañ doon jébbal kilifa yi tey ñi yor wàllu njàng mi ci biir Ngoundiane ci teewaayu inspecteur mi seen kilifa ñoom ñëpp. waaw loolu yàlla dafa dogal ren aussi jël nañ ci benn matuwaay dañu jël benn prestataire boo xamante ne liñ ko sas mooy mu recenser. salle de classe yi nekk si école primaire ñaan yëpp bu si nekk mu raxasal ñu ko bu mu set désinfecté ko ba nga xam ne tey tey tey am na école yoo xamante ne su ngeen fa demee tey élèves yi mën nañu jàng yoo sax du leen mat ci biir classe lii des suba dinañ ko matali ce qui veut dire que dès deme incha allah bu soobee yàlla. ku bëgg a jàng mën nga jàng. naqarlu ngeen résultat mu wàccee si Ngoundiane euh, waaw loolu naqarlu nañ ko te inspecteur bokk na ak ñun xalaat boobu parce que dañu gis ne ñoo ngi def suñu kemtalaay kattan pour résultat yi ngu Ngoundiane bokk ci résultat yi gën ci senegal mais day fa mel ni effort yi ñuy def résultat yi toppul effort yooyu maanaam tolluwul loolu. parce que mënuloo bokk ci commune yoo xamante ne yaa ëpp li ngay def ci éducation ba pare te say résultat bokk ci résultat yi gën a yées loolu xel mënu ko nangu te nekkul sax lu jaadu lu tax na ñuy lancer un appel di ñaan parce que enseignement bi ñii dañ ci am wàll ñii am ci walla mais gëm naa ne man ñi si ëpp wàll mooy jàngalekat yi ñi leen di ñaan li leen war ñu ko gën a xam ñu delluwaat ginnaaw li tubaab di wax conscience professionnelle ñu sa xalaat ko seen biir ba fexe résultat yi mel ni ñu ko bëggee loolu moo doonoon appel bi ñuy lancé à toute la communauté mais particulièrement aux enseignants. abri provisoire yi waa abri provisoire yi yàlla xam na ne ba léegi am na biir Ngoundiane am na ñu école yoo xam ne ba léegi am na ay abri provisoire mais comme ni ma ko waxee léegi ci tubaab yàlla dafa def. depuis six ans chaque année dañuy am programme boo xamante ne lu mu néew néew dinañ def benn mur de classe kii mur de clôture ci benn école lu mu néew néew dinañu def ñaari salle de classe yoo xamante ne tabax nañ ko ci benn école ñuy yaakaar ne fii ak ñetti at rek li ñuy tuddee école sans cloture dootul am Ngoundiane wala école ak abri provisoire dootul am Ngoundiane partenaires yaa ngi ciy jàpp waaye commune bi aussi mi ngi ciy jàpp véritablement lool merci merci waaw loolu moom xam nga jàngat bi mooy dañuy xawal leeral tuuti ren résultat yi ñu am CFE maanaam nekk na ñaar ca ci résultat yi ñu amoon daaw parce que daaw 26 pour cent lañ jóge ren ñu dem 51 pour cent donc fu ñu amoon benn am nañ fa ñaar bu dee aussi ci CFE bi am nañ 9 point virgule sa ça veut que yokku nañ juróom-ñeenti point yu teg kon ci wàllu résultat scolaire district bi def na ay jéego yu mag yu am solo. maintenant ci la ko jiitu woon daana am ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu li ko waraloon mooy am na jàngalekat yoo xam ne yii maanaam xam nañ ni ci zone àll lañ nekk inspecteur du fa ñëw bés mu nekk loolu moo taxoon ñu bëri ci ñoom dañu nekk jàngalekat yu dëkk biir Thiès ba pare fas yéene di liggéey zone yu sore yu mel ni jaag mbodoxaan wala zone yu ko gën a sori léegi nag loolu moo doon tax ñu ñëw ak retard parfois retard u 15 minutes mais bañ waxtaanee ñoom daaw ba pare jël ci ay matuwaay xamal leen ne. Euh, commune bi mi ngi def effort yu rëy rëy ci wàllu distribution ci wàllu fourniture ba pare itam mu am contrôle ñu gën a ñëw gën a jël ay pool d'inspecteurs ñu dem ci école yi constaté nañ ne booboog léegi résultat yi tànn na te itam jàngale jàngalekat ñi ngi gën a def sérieux parce que xam nañ ñu ngi leen di contrôler kon rencontre tey bi distribution des prix la woon naam mais gannaaw distribution de prix bi itam espèce su ndëpp la woon boo xam dañ ko organiser suñu biir waxante dëgg seet li nga xam ne lii moom mooy liy jariñ école bu ñu wax ko fi nga xam ne fa la école bi doxul ñu teg suñu baaraam ba pare na leen léegi il faut ñu wut ay pexe yoo xam ne dana yokk ci wàllu résultat loolu itam bi ñu ko defee daaw def ko ren gis nañ ne wax dëgg yàlla jur na li mu jur ren kon résultat yokk na bu baax a baax macha allah. waaw xam nga concept ubbi tey jàng tey dama xamul euh, ci ban euh, zone lay lay mën a bañ a nekk waaye fii ci Ngoundiane mën naa nekk ndax démb jaaroon naa fi tournée seet naa fi école yu bëri fekk naa fa jàngalekat yi. bay nañu kuuru école yi ci biir euh, classe itam désinfecté nañ ko ba amul yoo amul leneen loo xam ne lu mel ni ay weñ yooyu classe yi nettoyé nañ ko nettoyé tablement effacé tableau def ci ay siwo yu ndox ak yëpp am nañ dotation craie am nañ dotation cahier donc élèves yi war nañoo mën a ñëw dañuy soññ rek parents d'élèves yi ngir daal suba kenn bañ a yónni sa doom tool xale yëpp jàng si parce que am nañ certitude que ne enseignants yi ñoom danañ nekk en place donc ubbi tey jàng tey mën naa nekk ci euh, zone Ngoundiane. waa école yi ma jotee jaar yëpp fekk naa fa enseignants yi ak directeur d' yi te daanaka am na ci école ba ba ma fay ñëw presque treize heures jot na mais fekk naa leen fa loolu moo tax ma rafet ci njort te tournée yi day continuer suba dinañ dem tournée fii les quinze jours ci terrain bi man ak sama collègue inspecteur yi nga xam la ñuy constituer pour def liggéey.